kay mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen ko image yooyu dañ leen jëlale woon Thiès ci programme bi nga xam ne soxna umul xayri si di bintu soxna asiyatu mansour bété bété seen bi ko tuddee kan mooy sa waajur Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha responsable moral waaye kan mooy sa waajur bu jigéen soxna asiyatu mansour soxna umul xayri ci tournée yi nga xam ne dekkil na ko di ko def gannaaw bi nga xamee ne covid bi dugg na Sénégal xalifa bi Serigne Babacar si Mouhamadul Mansour joxewaat ndigal la mu jóg nag jóg bu njëkk nag eh, jeglelee ko waa Thiès eh, ci taaxi kaw section boobu la seeti woon nag ci njiital góor gi Malick Sarr gis ngeen ko mu ngi noonu soxna si nag ci noonu bi ñuy julli timis la dugg si nag Thiès fa tabaarakallaahu ñu julli timis ba noppi nag mu dugg ci tant bi ànd ak borom këram sëriñam soppeem di kenn ci moom di Cerno Cheikh Oumar Kane mi nga xam ne doon na lool trondoom Cheikh Oumar al Foutiyu ci yaatal lislaam bi Cerno Cheikh Oumar mu nga Guinée mu nga mu nga Amérique mu nga France mu nga Maroc un peu partout dans le monde fu nekk rek mu ngi fay dem ngir yaatal l'islam ak tarixa bi kooku mooy Cerno Cheikh Oumar di borom këru soxna umul xayri Asiya gis ngeen ko soxna saa ngi noonu topp ci ginnaawam ci noonu nag la ñu dugg si nag taaxi kaw ci tant bi Cerno na Oumar a ngi noonu fekkandoo ak soxna umul xayri mu baax mi nga xam ne moo tax kenn jooyut soxna Asi Mansour taxaw lool gannaaw ba ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ne ko doxalal lépp lu sa waajur yoroon mën nga koo yor ndax yar may na la ko teggin may na la ko waaye expérience may na la ko kooku mooy soxna umul xayri ah sëriñ Abdul Aziz sëriñ Habib Kébé ngoog di borom xam-xam ci xadara bi ñëpp xam nañ ko tënk lool ci kilifa yi di déglu lool ndigalu kilifa yi jaayi njureelam ak askanam jëndee ko taalibe Seydil Hadji Malick kooku mooy Cheikh Abdul Aziz Cheikh Habib Kébé fa tabaarakallaahu oustaz Mor yi ngi noonu nag yoroon na gàmm ga wax nit ñi kan mooy Seydil Hadji Malick waaye kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ah ci mbindum Cheikh Seydi El Hadj Malick bés ba nag alxaaji Njaga Samb teew na fa moo ubbi jataay ba ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak góor gi alxaaji Maodo Malick Diop bu Serigne Mansour borom daara foo gis soxna Umul Xayri rek gis ko ci wetam ñu bàyyi leen ngeen déglu programme bi ci Wilane TV. su ma saan ànd sa yaay dama naan. asee waaral. kuy jigéen yaa ngi def lu baax dala koy digal ne ca yoon wa aasi Mansuur la e ku sopp soxna aasi si Mansuur waaw waaw yaa ngi dem lu baax dala koy digal ndeysaan ne ca yoon wa aasi Mansuur a ca loxoy ca kaw ase waral fii kuy jigéen yaa ngi def lu baax dala koy digal ne ca ase Mansour ase waral ndeysaan fii kuy jigéen waaw yaa ngi def lu baax waaw maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di wax soxna si baatu bismillah di ko dalal jàmm mook boroom këram ak délégation bi ma àndal bépp bàyyi koo Dakar ak ñi nga xamante ni bii sax ñi ngi bàyyi ko biir Thiès ak Ebalia cees ca ànd ci délégation di soxna si àndal nuyu naa ñëpp di leen siyaar di leen war bismillah soxna si ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci loo ma gën a xam muy fondation Maam Fawade Wele ànd defar gaaya sa wayjur wu tedd wu sell wu baax wa yëkkati woon ko fa mu jaar yépp nag ba yëkkati ko wax na ma ko man mii waaye loola gay gudd dara ñoru ko woon nag lu dul liggéeyal maamam ju tedd ju sell ji di maam faa waat wele a seydi yow sama sang yow alaaji malik aya seydi yow sama sang yow siri aji malik xaali yow sama nijaay wa cheikhi yow sama sëriñ wa walidi yow sama waajur malaasi yow sama wéeruwaay wa xisni yow sama murshidi mawda yaa may gindi wa wasila yaa may yéegal yëpp ma kër yàlla eh eh eh alaaj Abdu ne yaa may yéegal kër buur yàlla mi nga xam ne tudd naa ak màggam ak sellaam ku sopp Maodo defal ni ila ila ahmadul mabxuus ila xayri ummatihi jaarale ko ci ki nga xamante ni nii moo gën di xeet muy muhammadu rasulillahi muhammadul muxtaar eh ki nga xam ne moom la yàlla tànn muhammadu hashim ki nga xam ne moom la yàlla tànn ci bani hashim ak Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ki nga xamante ni lii moo gën a màgg ci awliyaaw yi alaaji Mansour si Malick nee na maam Seydi alaaji alaaji Mansour nee ngir fàttali ko sëriñ alime sëriñ bu ragal yàlla sëriñ bu maandu ay waay maay sëfoor yaay emprunté dugalal vitesse bul waay kiya aha aha aha xaadal anaama mooy wëmman min dee fii ilal huda jëmaleen kër yàlla alaaji Malick sëriñ la taqiyun bu ragal yàlla e e deesu la tuumaal شيخ سيدي حاج مالك على الفخامة دفا رجل يلا مو موضوع بإله المعاني سرين بي سمام سيدي حاج مالك الله شيخ بولتوك منو سمام سيدي حاج مالك موضوع موضوع كدوي وار باي باي يغني سيدي حاج مالك 24 هور ني لا نان دوندي موم موت 24 هور الحاج مالك لا لي بغي نيتالي nga xamne ken du mam الحاج مالك Serigne Habib Cheikh Serigne Hadji Malick Maodo bu xëyee huit heures ma ne Maodo bu xëyee fajar dem na jàkka ja julli dina fajar moom Serigne Hadji Malick maa ngi waxtaane doomu maam Fawade Wele bi ngir ngeen xam ki ngeen téye mooy kan Maodo fajar julli na fajar bu julle fajar ba pare lal malan bi wazifa Maodo bu wazifa ba nopi mam Cheikh El malik lal na dara ja tambale jangale Alqur'an Maodo bu di jàngale Alqur'an di jàngale Alqur'an mam Cheikh El mal non la koy jappe ba une heure yeesal njàpp delu ca jàkka ja def ay zikaram ba tisbar jot Maodo julli tisbar bu Maodo julle tisbar pare ñëw ci bir kër gi bu ñewé bobu jamono joju mam alhaji malik amon na ay xar neena la Maodo amon na ay xar ndax wiraasa la bu mu don na ci yonent bi si laaji maali bu ko neexoon muy añee bu jën wala muy añee mis wi wala muy añee ginaar waaye laaxu daqaar la ñuy tegal Maodo mu raxas baaraam bi dugal ko ca la taq ca baaraam ba Maodo mar ko ba muy ñetti yoon Maodo delloo bool bi ne alhamdulilahi rabbil alamin bu pare du naan ataaya Maodo du naan njorom soow Maodo bu paree ndox la ñuy jël ndox la ñuy jël tàngal ndox ma ba mu tàng ñu jàmb ca salaan jox ko moom Cheikh El Hadji Malick naan ko bu noppee dellu ca daara ja ku nekk ak la ngay jàng kii usul lay jàng kii mantiq lay jàng kii arut lay jàng kii bayaan lay jàng kii siira lay jàng ku nekk ak li ngay jàng ba tàkkusaan Maodo julli tàkkusaan ci jàkka ja bu noppee daa di def laasimam bu noppee daa di wéet ak mag ñi béy leen secret tariqa bi alaaji maal noonu la de ba timis jot mu julli timis lal mbalaan ba wasifa bu wasifa ñu def zikaru gee julli gee alaaji maalik bu jullee gee ba noppi dolli ci kër gi def waqafu alquraanam Maodo bu defee noonu ba noppi wéet ak magi tariqa bi béy leen secret tariqa bi mam Cheikh El Hadj Malick di jàngale Maodo di jàngale ku ci nekk ak la mu lay jàngal El Hadj Malick daal di ba minuit jot Maodo julli ñaari raaka yoo xam ne minuit lay départ ñaari raaka yi fajar lay jeex première raaka bi Fatiha lay jàng songu Baqara songu Ali Imran songu Nisaa songu songu Maayida El Hadj Malick noonu la koy jàppee ba suratu Kahf Maodo rukkoo a toog sujjoot siggi toogaat jóg indi deuxième raaka songu suratu Mariam ba minal jinnati wan naasi jot El Hadj Malick daal di dem ca jàkka Touré na 11 ans laa nekk Cheikh El Hadj Malick nii laa gis Maodo di dundee El Hadj Mansour ne dëgg la nu chariat samaam samaam mooy jëmmi sharia mooy jëmmi xaqiqa Maodo. saamil maqaami wa umdatul ulama imaam Maodo. saamil maqaami moo yëkkatigoon daraja wa umdatul ulama mooy dëgër laay borom xam-xam yi. taajul alaaji Malick comme ni weer ak biddeew ak jant tiimee lépp la Maodo tiimee góor yàlla yi. alaaji Malick mooy kiru ngëneel. ngëneel bu yaatu. ñeel ku bëgg a leer yow mi bëgg a bokk ci fondation Mame Fawade Wellé bul am looy ragal ñëwal bokk raw say maas al alaaj Malick daan na jàngale kuulee xam-xam xam-xam yoo xam ne rappoon na ci biir école yi école ñu weex yi ak école yi ñuul yi déedéet déedéet alaaji Basira yaakaar damaa yaakaar ne ku sopp Maodo nekku ci tànt bi mu wadiya ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma góor góor gi nu mu tudd kii nu mu tudd Baye El Hadj Malick Sarr léegi-léegi daa wax jum wax dafa ne Baye El Hadj Malick dafa ne ñun ñuy wax ñëpp kenn dégluwuñu man mii xam naa ne li may wax kenn dégluwu ma te ma boole kilifa gu baax muy Serigne Cheikh Omar Serigne Habib jëmm ju baax a ngi nii. soxna jërëjëf si. laa euh, maa ngi nuyu sama sëriñ di soxna Umul Xayr. dafa mel ni kër gi amul askan kilifteef la am ak sëriñ te mooy sunu sëriñ yàlla yàlla lafal la bépp cat yàlla boo am benn gàllankoor yàlla boo tële ci xel ak ci cër yàlla bu la sa benn noon dégg su dee am na noonu yàlla na yàlla wëlbati def leen ay soppe ñu topp si ginnaaw eh, yàlla na yàlla fay la yiw nuyoo boobu nag Serigne Cheikh Omar Fouti yu moo ko moom bu baax bii toog ah sa maam Cheikh si dafa waxoon ne moom ci waxam yooyu nga xam ne moo ko sañ mu ni man gawuma gémmi mooy li oustaz wax sànq ci teraanga bi ñun ñëpp euh, gis nañ ko te it nag kenn du la yërëm may la soxna dañ lay yaakaar may la soxna euh, def lu baax ni wax ko du gémmiñ sëriñ Cheikh ne gémmiñ mooy ñun la yaa raw diw nga ne waaw te wóor na la ne rawoo ko kooku la gémmiñ dugg waaw waaye li fuuti yu def defal ko sama sëriñ sama mbokk sama àndandoo ci liggéey bi di soxna umul xayri te it nag e, am na luñ dul wax ci kaw waaye am na lu ñu yëg ci xol te loolu nag wax du ko defar waaye ànd ak moom liggéey moo koy defar Euh, soxna mu ko ko ñeewantuwul rek doo nit ñun bëgguñu kenn yërëm ko waaw ndax ku ñu yërëm da nga tekkiwul dara waaye ñeewantu da nga ko def sax kuloo ko teraanga da nga daan xool Pape Abdou Al di tas di def nii fekk yërëmoo ko da nga ko ñeewantu kon Serigne Cheikh Omar Foutiyou li yonent bi daan santaane moom nga def sa digganteeg soxna soxna umul xay bi mooy nit day gunge soxnaam nit day ànd ak soxnaam di ko sagal te yaa ngi koy def yal na la yàlla doon lee sagal di nuyu bu baax nag maam ndaxte keroog ci daara ji mu ne ko maam ndaxte mu ni sëriñ Moustapha moo ko njëkk wax maam ndaxte ah, ñu ñaanal sa papa yàlla dolli ko wér ak gudd fan ak sutura moom mi la jox ndigal ci lii eh, te ndigal li sax sëriñ Cheikh Omar a ko moom waaye ñun ñëpp dañu nekkaat rek njaboot ci moom bu dee soxna Asiyatu eh, yàlla na yàlla dolli koo fay waye soxna Asiyatu demul yaangi fi te inshallah allah lu sama Maxtaar Penda de ci dundon nga ko dund. on na le ca luga ne la do gatt fan. mam malik si ak yaayam ño bokk nday ak bay te barab bi ak bu jot sa sa sa nijaay yónni ma fi mam malik ak bu jot ma ñew fi dina fi ñew ñaari yoon. benn bi moo fi yebal bi ci des ma ñëwal Mouhamad Moustapha Mbaye bii buñ tabaskee ba am ñetti fan kon fii bi may toog di xalaat ne lu dul dëgg amul solo bu la maam di yebal nga wàññeeku mu boole ma ak soxna ummu ñu wàññeeku àndaat ñëwaat ci barab bii waa barab bi dinañ xam ni ànd nga sa mbokk te nag man ku ma xam-xam ne su ma ànd nit du échec parce que lu mu laaj dinaa ko ci def waaw alxaaji Souleymane Diaw tabaarakallaahu ndax nit da ngay si ku yaatu la ku baax la tabaarakallaahu xam na jarbaatam li mu donn ci maamam la jarbaatam donn ci maamam soxna ummu nag yor fondation maam fa waddu wele waaye ki ko yor tey maam ndaxte nii la ndax mag buy wàcc ci oto da koy ñeewantu buy yéeg da koy ñeewantu waaye mu am ci fit rek ndax Serigne Cheikh Tidiane Sy dama wax barki démb ay nit ne leen ku fi muñe xol bee sëriñ Cheikh nee na kenn du muñ xol gis nga armeel yoo dem armeel yoo dem ñi tëdd ko ci yeewoon laaj ko xam nga lu ko rey di muñ xol ba dee te nit piir du muñe xol xel lay muñe moo tax bul muñe xol mukk kenn di la stressé loo del muñe xalaat rek mooy loo dégg rek di ko tëdde toogal xalaat lu xew loo ca war a tontu nga xool boo ko tontoo lu cay topp bu ca tontu ba dee defar nga defar bu ko tontu ba dee yàq nga xaar ba ëllëg waaye bu ko muñ a xol ba kenn tere la añ est-ce que ñi dee ci armée li yëpp ay sama goro bi sama wujj bi sama jëkkër dama muñ lu ne ba xëy dee yàlla bu la ci gërëm ndax xol kenn du ko sëf nit yàlla lañ koy sëf nit xel nga koy jox fu mu jaar nga xalaat noo koy fentee ba du la laal waaye sa xol bi bu ko muñe mukk nit muñe ko xol yàlla moo tax àdduna ku gis délégation bii parce que waxuma ñun ñi ñëw waaye ñi fi teew ñëpp ci délégation bi la nga am da ngeen nit jitu si rek waaye ñun ñëpp a ànd ñëw kon maam ndaxte defe naa maam xaar maam ndaxte ñu ngi koy beral cant ndax nag mag du caaxaan man dafa bokk ci sama gàllaaj léeg-léeg nga wax ñu ne li nga wax euh, maam xalifa kebe bari ki dem dañuy wax mu ma waxal rek sa dëgg li ngay wax jàngoo ko man mag ñee la ko defal ma ne ko bokk na ci sama secret nag du ma def morom samay sëriñ waaw mukk ci àdduna lu ñu bokk-bokk demb bun na tomb leeru wilaaya Maodo dama bëgg ngeen comprendre lu leer tey tomb leeru wilaaya demb bun na ci Cheikh Seydi El Hadji la wàcc loolu mooy fondation bi de message bi ñuy jàllale dañ fi bëgg bu ñu fi jógee tey rek incha allahu liggéey bi commencé ku bëgg a adhéré nga ñu liggéey rek ka dem ku ci bëgg a def Cheikh El Hadji morom nag bul ñëw ku ci xeet deretu Cheikh El Hadji Malick bul ñëw dañ lay ñaanal rek nga defaruwaay bul ñëw dem ba bul na ñi mu jur bëri na moo jur maam ahmadu te maam ahmadu mareema si doomam la mareema kan mareema si jur ko mu jur haadis si bi jur suma yaay muy sa xarit di xaritu sa doom Bachiru bu dee maxtaar pend si doomam la moo jur mor mu jur assu mu jur alxaaji mbër moo jur fatim ali si mu jur alxaaji xalifa kebe ak aminta bi jur suma yaay waaye ñun ñëpp taalibe alaaji Maalik lañu maam Maxtaar Penda mag la woon moo wax maam Mor bi xam nga li may wax xam nga lu tax ma bëgg ñu wax xam ko mooy dama bëgg ñu ànd ak moom liggéey képp ku def sa bopp sëriñ ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick ak ku leen ñeme doo dem Maodo Serigne Mansour borom daara ji mës naa ko seetaan mu ni deretu Maw Alaaji Malick rek mooy songu jële ca jàmm te loolu c'est très important waaye kudul moom ba ma songee vingt heures ma rey la jullee la ndax sëñ Babacar ma ko defal te dañuy gis ku defar këram ba mu jekk kon war ngaa mën a bàyyi sa kër sëriñ mu jekk waaye xaal xaalaat yi nekk ci ñoom bu ko lijjanti da nga leen bàyyi ñoom ñu def ci seen diggante lii kër yonent bi doon def seen diggante ñun nag ñu noppi ni ñi doon seetaan noppee ca kër yonent bi Makhtar Penda mag la ñu ne am na cent trente cinq te bi mu demee ba tëx daf ni sama dégg passé tul Mauritanie seetal loolu toog fii di dégg Mauritanie naan dama tëx kooku moo jur maam Fatim Alesi bi jur ki jur suma yaay moo jur pap Xalifa Kebe ci boppam yaayam moo jur papa yaayu pap Makhtar Kebe ndax Pape Makhtar ak Pape Khalifa bokk nday ak baay te Pape Makhtar ku sopp soxna Umu Xayri ku may faral di ma ko laaj am na benn mbokk bu ñuy wax Zaki yu saw suñu Abdou mooy léppam ak Serigne Cheikh mu fonk ma waaye fu mu tourné mu ne ma waaw ana soxna Umu bàyyi yaa ngi koy jàpp soxna Umu Xayri ne mu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamu aleykum wa rahmatullah moo ngi leen di ziyaara itam di leen jox seen yéeguwaay di jéggalu it ci kàddu yi mu yëkkati ndax samay kilifa ñoo fi nekk macha allah ñu fi jël kàddu ñëpp lu rafet lépp lu ñu fi war a wax rek wax nan ko joxe nañu ay kàddu ngërëm waaye joxe nañu ay kàddu cant léegi suñu ustaas yu baax yi ak imaam yi ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak suñu yaay yi suñu papa yi président yi ak présidente yi ak membre yi fu ñu waxee tudd nañu ñëpp ndax bëgguñoo guddal waaye xam leen ne man soxla mul xayri si sama xol sedd na ci yéen ku tudd ak ku tudd ku fi teew ak ku fi teewul ñoom ñëpp sant naa leen ci seen taxawaay ndaxte jot anu bàyyi seen lépp ñëw gunge ñu te benn lam kese du yëngu ne man dama leen di gunge rek ndax Fawade Wel liggéeyam dafa yaatu te soxna Asiyatu Si Mansuur ñun mënuñu koo fay kon nag lool nee soxna Asi bi muy compté weer yaag bis ya ba mu des une semaine bi sëñ Mansour génne àddina daf ma woo ne ma eh umul xayri indil bi gëm fël leen bu baax ne ma umul xayri bindal dat te nga jox ma ma signé ne man nii soxna umul xayri si sama yaay ju tedd ji soxna Asi man maa bind testament ne loolu fu ma dem dama koy wax ndax yombul ñooñu ku leen am waay waay waay waay nga xam ne am nga ay waajur yu yàlla teral kon nag loolu bees na ko war a sante yàlla ndax koo xamante ne ñëpp la njaboot fondation Mame Fawade Wellé du ay tiijaan dong ñoo ci nekk de na leer tariqa yëpp kilifa diine bu mën a nekk senegal sa njabootam ci ba ci am na ay catholique yoo xam ne ñoo ngi ci biir fondation bi am na si koo xam ne dafa nekkoon ba ci biir mu tuub dugg ci diine lislaam ndaxte yëf yi dafa yaatu kon nag soxna Asiya aussi di sama waajur bu ma woowee man soxna Umul Xayri ne ma téel ma fondation bi dama koy teeg sama téeméeri loxo ñu ngi bëgg. nee ñoo ngi bëgg lool. ci dalal gi ngeen ñu dalal. ci dalal gi ngeen ñu dalal. soxna yu tedd yi. soxna yu tedd yi. bo ba léegi tok di xaar. bobu ba léegi ñu tok di xaar. don ay mag. don ay mag. don ay boroomi keur don ay boroomi keur ay responsable. don ay responsable. waye mbax waye mbax ak yiw ak yiw. bëgg lu bax ak bëgg lu bax tax leen tax leen. xaddi wuñu. xaddi wuñu. tayi wuñu tayi wuñu. tok tok bobu ba bobu boobu di xaar di xaar soxna umul khairisi yal na yàlla dëgëral seen. yal na yàlla dëgëral seen taxawaay amin yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen. di nuyu waa action daara ji. di nuyu itam waa action daara ji. bu ñu tuddee sëñ musa bu ñu tuddee Serigne Moussa. mu yóbbaale ñëpp mu yóbbaale ñi nekk ci ginnaawam yëpp. ak sëñ sëñ Maodo jaw ak Serigne Maodo Diaw. ñu yóbbaale ñëpp ñu yóbbaale ñëpp rek. soxna Umu nag. Serigne Cheikh Omar ne soxna Umul Xayri mi. yan wii mu amee. ne yan wii mu amee. mission la. mission la. bu mu donnee. bu mu donnee. ci ay maamaati maam. ci ay maamaati maamam. di rot si ci maam. di rot si ci maam. rot si ci baay. rot si ci baay. ba yaay. ba yaay. ba tey mu mujj ci ay loxo. kon lii silsila. ne kon lii silsila. bu gudd la. bu gudd la. te yàgg. Serigne Habib. ne Serigne Habib. wax na wax ji yëpp. wax na wax ji yëpp. ñu ngi wax mbooloo mi. nee ñoo ngi wax mbooloo mi. nañu fonk. nañu fonk. jàpp jàpp. bu dëgër ndax nag bari ko. ndax nag bari ko. mbar ci mbartal. ci mbartal. puus mu dem. puus mu dem ñàkk puus mu dem. lii lu ay ay mag sos la. nee lii lu ay mag yu jege seen borom sos la. soxna Asiyatu Si Mansour. soxna Asiyatu Si Mansour. yàlla nañu ko yàlla fayal. yalla nañu ko yàlla fayal. dafa juddu. nee dafa juddu. ci këru wilaaya. ci këru wilaaya. fekk baayam. fekk baayam. Serigne Mansour si borom daara Serigne si borom daara yi. yàlla may ko ay martaba. yàlla may ko ay martaba. yii yu mu donn ci baayam. yii yu mu donn ci baayam la. yii yu ko yàlla cëral. yii yu ko yàlla cëral la. mu mënoon toog. ne sëtu Seydil Hadji Malick ne man kat sëtu Seydil Hadji Malick laa. doomu borom daara ji la doomu borom daara ji laa. damay toog di laaj. damay toog di laaj waaye defu ko. waaye defu ko de. bëggal ñëpp yiw. bëggal ñëpp yiw. bëggal ñëpp mbaax. bëgg ñëpp baax. moo waral. moo waral. mu créé mu créé. fondation fondation. Mame Fawade Wele. lu ko tax a jóg. ne fondation bi lan moo ko tax a jóg. kaay leen ñu ànd. kaay leen ñu ànd. jàppante jàppante. doon benn doon benn. jaamu yàlla jaamu yàlla. liggéeyal xadara liggéeyal xadara bi. mu def ci loo xamante ni. ne mu def ci loo xamante ni nii. kenn defu ko kenn defu ko ci déedéet. mooy jiitu ca waar wa. mooy jiitu ca waar wa. fu njaboot nekk. fu njaboot nekk. la mu sori sori. sori sori sori. sol na dàllam bi dàllam bi. fekk la fa fekk la fa taxawu la la. alxaaj Ndiaga mi xam na ci. nee alxaaj Ndiaga sàmb mii seede la ci. fu ne. fu ne ci àddina bi ci àddina bi. fondation ma nga fa fondation Mame ma nga fa. man damay dox ba ci yàgg. nee man damay dox ba ci yàgg. ne leen ah xanaa fii moom soxna Asi ak seegu. nee ah xanaa dëkk bii ma ñëw ni mu soreeg ni mu ruqee xanaa soxna Asi ak seegu fi. ñu ne ma ba mu fiy ba soxna Asi ba mu fiy ñëw du tey. boobu la yoon yi gënoon a métti. booba la yoon yi gënoon a métti. lépp rek. lépp rek. ngir mission maamam ngir mission maamam. Seex Seyd Alxaaji Malick. tey gaaya. nee tey gaaya. bari na si yéen yoo xamante ne. bari na ñu sant si ñoo xamante ne nii. bu ñu fa demee. bu ñu fa demee. yoon wi leer ci leer ci ñoom. grâce a grâce a soxna Asiyatu Si Mansuur. loxo ca kaw ñoo nga ne. تلبس الله صنو أم سمام جوان النيل رسول الله